di wax ni rek Sénégal ak Mauritanie moom dafa nekk benn réew boo xam ni mënuñu ko daane ko benn réew la ndox mi rek moo ñu séparé di wax ni ndax boo demee Sénégal tey ji nga dugg ci foo dugg naar yi ña nga fa nekk seen jàmm di daan seen doole ci na na te nañ boo xoolee da nga naan sax naar yi ñoo fa gën a nekk sax Sénégal ci jàmm nga dem université noonu lañ fa mel ñun nag dañoo ñëw fii di fi daan suñ doole rek di kaay mi kaayatu waaye métti na métti koo xam ni ñun dañoo jàpp ni suñ président moo fi war a moo ñu war a mën a taxaw taxawuñu bu baax a baax ndaxte jafe-jafe yi yëpp yi fi am moom ca suñ maam laa Wade ñun gisuñu ko woon wax dëgg yàlla mosuñu koo gis ndax dañ daan dégg ministère sangam ñëw na fi mi ngi réglé si léegi nag muy ci géej gi muy fépp problème yi moom metti na métti daal lépp sax nañu leen ko wax ndax dafa métti metti goo xam ne doy na waar. mais quand même dañuy jooytu loolu euh, suñu ñàkk gis euh, suñu njiit ñu fi nekk. vraiment am na loo xam ne da ngay dox même bula dalul dangay gis à chaque fois muy dal ay nit ñoo xam ne ay tout tànk ay ñoo xam ne duñ koy tuddee gaa ay malchance mais euh, vraiment ay euh, liggéey loo nit ñi gaa ñàkk leen fay loolu beneen boor la mais da ngay génn dox benn pas nga dajeek ay policiers ñu lay jàpp ñu lay torture di la dóor vraiment si lu dara amul. waaw même lu fi xew ba ñu politiser ko naan ko ay étranger ñoo fi nekk di manifester wu ñu bari. mun nañ leen di citer dañ leen di fekk fu ñuy jaay wax ak ak ci mbedd yi ñu jàpp leen yóbbu leen ci prison yi yóbbu leen réeful leen. jotoon nañ fee jàpp nag ay sunu mbokki sénégalais yu bari mais yàlla dogal na bàyyi nañ leen ñenn ñi refoulé nañ ñëpp daal amul kenn kuñ ci bàyyi. non motif romance la woon rek problème bi lañ doon wax naan xale yu sénégalais ñooy manifesté mais yàlla xam na ni manifesté wuñu ñii dañ leen di fekk ci mbedd mi jàpp leen ñii ñu ñuy liggéey ba wàcc ñu jàpp leen mais amul kenn koo xam ne dañoo ñëw fekk la sa biir kër wala ñuy manifester wu ñëw fekk la ci manifestation bi loolu amul. fi la nu fekk fi fekk ak métti loolu ak tiit ak njàqare ba ni ma waxee yow sama benn booy dañ ko ci téye wàcc yi jënd reer ñu woo ko mu bañ a daw yéeg si kaw pour ñu jël gaa yëpp mu wuy leen ñu yóbbu ko ñu wax ko da doon marché te bokku ci booy bi xamul dara loolu dañ ko defeere wallaahi ñu ne dañoo manifester lañ wax gaa ñu ne waaw manifester wuñu benn sénégalais mënul manifester ci problème Mauritanie loolu amul loolu moom dañu koy teggi amul am na ñoo xam ne nag xëy na dañu koo def par erreur nga gis afule daw wala ñoo xam ne dañu leen di fekke seen liggéey liggéeykaay jël leen yóbbu ñu naan dañoo manifester mais amul benn sénégalais bu fi manifester ci événement bi. ndax dafa métti métti goo xam ne doy na waar fekk nit fekk sa kër ñu dajje ko dikk jàpp la ñu leen di dóor di leen wax ni wax leen dañu doon manifester loolu lépp gis nañ ko. ndax suñu suñu xarit yi ñu doon siisa dem kenn ki dañ ko fekk ci kaw machine am muy ñaw kenn ki jël satalam di dem duus non lañ ko japp xam nga loolu lu metti la te delo ber dem lañ leen siisa ba delo nañ leen senegal ha ah, loolu day dafa nekk lu metti metti ñu bëggoon ñun suñu autorité yi ñu taxawuñu même ambassade bi ne fi ak député bi nekk député diaspora bi ñun bu dé jafa jar sax ñun mom wax yalla ma sha allah gis ñu ci mom suñ suñ ñom alhamdullah vraiment dekk bi mom lu dul euh, coono yooyu dëkk bi bu dëkk bu neex a liggéey la wax dëgg yàlla moo tax euh, boo gisee ñun ñëpp ñu jàpp ci di gis lu ñuy metti chaque jour mënuñoo bàyyi xëy na euh, moo xaw a tànne ak lu ñu bàyyi ci gannaaw mais bu ñu bu tànnee tamit ñu ñu bàyyi ñu nekk suñu njiit dañoo war a teg suñuy loxo ci lu ñuy def nii après ñoom ñu jàpp ci ñu mun a xam ne vraiment am nañu ay njiit bu ñu tooñee ba baax na ñu yóbbu ñu ci yoon mais bu ñu tooñee tamit. ñu xam ne vraiment am na ñoo xam dañuy taxaw pour euh, jàppale ñu si lu ñuy tooñ. gouvernement Sénégal moom wax dëgg yàlla fi mu nekk nii nii nii moom nemmeeku wuñ nit ñu war a nemmeeku moom jàppale wuñ nit ñi war a jàppale wax dëgg yàlla ndax danga fi sonn am fi ay jafe-jafe pour ñu lijjanti la problème la. moom daal li fiy lijjanti mooy nga am branloo loxo bu gudd nga dem lijjanti sa bopp wala nga am sa benn xarit wala nga làmb sa poos lijjanti sa bopp mais gouvernement Sénégal pour mu taxaw fii nit yombul. nguur gu bees gi moom xam mu sénégalais yi wax dëgg yàlla ñu ngi xaar kat bu ñëwee fii changé ñu dëkk bi ni ñu meloon ñu mën am jàmm mën a liggéey nekk suñu activité bañ a am benn problème mhm. wax dëgg yàlla ay jafe-jafe la problème mu këyit da ngay gis ko fi juddoo yaroo fi màgg fi am naa doom kii sama sama grand bi doomam fi la juddoo xale bi mu fi doon indi fii la juddoo mais mënu fee am këyit kii tamit noonu xam nga am nañ suñu njaboot waaw jafe-jafe la jafe-jafe kayit mënuñu ko fee am moo tax jéemuñu ko wut ñu daal Assane Gueye lañ gis moo ñu fi taxaw taxaw goo xam ne doy na waar Assane Gueye moom ci Sénégal yi ci la nekk fii Masalah, lu muy guddi heure boo ko di woo dana taal otoom ñëw jàppale la ñuy wax ne même ñu ngi koy jàllale ci sëriñ si ku mel ni sëñ Basir Abdou Khadir ak sëñ Muntaxa nañ ñu ci Dah a dimbali jàppaleñ ci ndax ñun dañuy daan suñ doole rek bëgg lu ñu yóbbuwaat ci réew ma ndax ñun Sénégal liggéey la xam daan dooleem tëdd dem ci waar wi jàng ci xasiday sëñ Tuubaa yi loolu lañ xam xamuñu leneen lu dul 2007 ba di dóor ah me mais rek tawfeex waaw ñu ngi sant yàlla bu baax dikk def ni rek for dara daa delluwaat sa dara ja wa gis nga xaalis bi mom njaay mom yama gëna xam ma ambulant moom mom legi nga xey nga jot dara legi nga xey yama gëna xam wa njaay mom duñ sañen bu nek heure xey dañ koy gis mais du tay nexé dañi xam ne rek sun borom moko waral ndax dañi sawablu rek ab jaakanoom sawablu rek nga def waaw wa fi ogey bi dem yama gëna xam ogey mom baxulum ndax da ngay def 64 mille uguya door am 100 mille CFA presque lolou dafa metti tolo juroom ben fukki jinn uguya ak juróom ñetti junni do am ñaar fukki junni CFA dafa metti waaw moom seen xaalis moom moo dem moom baaxul moom. 2003 nag laa fi dugg si mais damay dem di ñëw lu ma ñëwee maçon laa doon def après yëngu damay yëngu daal Baye Fall yi moom xam nga ji koy Baye Fall moom. li ñu jaay moom waa ñu ngi siy dund mais li ñu siy dund lépp yéeme na daal parce que léeg rek bu ñu dundee genn wàll gi lépp Sénégal la jëm waaw Sénégal jëm ba noppi jafe-jafe yi fi amoon jamono yee. moom yéeme woon na lool ba ñu danoo découragé woon sax pour dañuy ñibbisi Sénégal man mooy moom wax dëgg yàlla découragé na moom ba dama ñibbisi Sénégal moom. moom nguur gu bees gi am fii moom ni mu commencé woon moom wax dëgg yàlla moom xaw na metti trop si ñun parce que sénégal yi ñu si boole ne danoo am ay dañ see boog ah yàlla la gën a wóor la yàlla la gën a woor la wax dëgg yàlla yàlla la gën a woor nee na nag sénégalais yi doon see bopp mais daal yàlla la gën a wóor daal. waaw dañuy yëngu ci wàllum war yi ak incensement la sang yëpp def daal. waaw waaw ñu ngi sant yàlla nag ñoo ngi sant yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi lu ñu ñu ngi sant yàlla mais li ñu sonal daal mooy weccet bu seer bi maam. moo ne bi CFA changement auguier bi ak CFA bi moom franchement dafa seer trop seer na day yéeg ak a wàcc instant bi ñu toll sax dafa yéeg trop trop sax waaw moom ñi ngi a wàññeeku daal jamono yi weccet ci la gënoon a xewale moom franchement. Ah, bu ñu ci mënee jàppale daal moom ñun ñi étranger yi nekk fii Moutani moom yaakaar naa ne moom ñoo gën a sonn moom ci wàllum weccet beeg wàllum kayit yeeg yëpp daal moom lu ñu ci nguur gi mënee dimbali daal moom dinañ ko sàkku nañ ko lool waaye. waaw wax dëgg yàlla ñun moom suñu côté dafa dépendre si job bi rek bu job bi doxee rek lépp day dox mais xam nga comme job weñ la des fois mu dox des fois du dox mais buy dox rek moom ñu ngi si jàmm quoi ñu ngi si suturlu di dimbali suñu bopp lu nu mën ñoo ko mënal suñu bopp di dem wari ba di dimbali suñu mbokk man nak bàyyiwuma xel loolu hmm. franchement bàyyiwuma xel lolu kenn ku ne ya xol lo arranger rek affaire yooyu des fois nag mu metti comme aduna bi yep ni muy demé waaw ñi ngi dal ci si jàmm amuñu fa problème kenn wa lolu nak li ci ëpp ci mool yi lay ëpp quoi ñi nga xam te dañuy dem geej wala dañ fi ñëwé yenn condition yi ñun dañ fiy dug ak condition yu légal bu ci jour jotee dañuy ci jour bu liggéey amé dañuy dem déposer suñuy papier liggéey nice ay jamono nak waaw dona na metti waaw ila alhamdulilah dana si mën fay location ñi ci si yassunu a et puis ci si yone a daara ja waaw ndax manam doo di xëy di lu baax de suñu borom dala si jàppale waaw alhamdulilah mom tane na moom maanaam moo def moo baaxul mais tane na alhamdulilah nguur gi bees yi ñi ngi manam mu tok ci jamm ak salam dal ci jamm ah manam su ko defé rek lepp fa laaw ndax ñun mom Sénégal ak Mauritanie ben la Sénégal ak Mauritanie benn la waaw jamm ak salam lay ñaan mu toog si jàmm euh, yor si ni ñi jamm yaa dégg ndax fa law da lepp fa law